c'est un boo xamante ne warul am pour dire te su tegoo ci table ji c'est parce que y a des députés de Yewwi qui sorti sur la parce que coow li mi ngi commencé ci benn conférence de presse boo xamante ni ay députés Yewwi ñoo ko defoon comme ni ko war jooju waxee l'Assemblée nationale c'est le lieu par instance de dialogue débat boobu conférence de presse boobu waruloon lieu mënoon nañ toog entre président du groupe parlementaire et les non alliés regroupés ñu discuter sur cette question parce que ils ont identifié que au niveau du du du règlement intérieur il y a yoo xamante ne ñu ji donc pour ñu mën a recevoir le premier ministre il faut ñu apporter les corrections sur sur le règlement intérieur au lieu que ñu dem toog seen biir waxtaane ko en tant que député ñoom seen biir benn groupe parlementaire génn def porte presse def communication politique su defee communication politique obligatoirement day am réponse politique c'est ce que les députés de benn Bokk Yaakaar ont fait beneen mbir bi sur la question mooy la la la lettre réponse du premier ministre sur cette affaire parce que aussi le premier ministre doit savoir que il fait partie de l'exécutif dafa am bët bu mu war a xoolee législatif cette lettre réponse dafay jam les députés de la l'Assemblée nationale dafa am bët boo xamante ni su ko amee da koy am donc coow li am yëpp ñaari situation moo ko andi mooy la lettre réponse du premier ministre ak la conférence de presse de la de la coalition Yewwi Askan mënoon na ñàkk parce que suñ ko waxtaanee woon seen biir parce que ñoom ñëpp yëg nañ lii parce que avant que le premier ministre Amadou baax doon ñëw assemblée nationale déclaration de politique générale Mamadou Lamine Diallo bind na ko bind na ko courrier les députés qui étaient là-bas au courant de tout ça mais terewul ils l'ont accueilli ba mu def déclaration de politique générale ba motion de censure tegu ci et pendant temps personne n'a parlé de crise institutionnelle aujourd'hui on nous amène une crise institutionnelle qui n'est là que de, de nom crise amu fi pour man loolu laa jàpp crise amu fi dafa am ñu ñëw taxawee declaration politique ci situation boo xamante ne mën naa ñàkk institution constitution bu Sénégal mooy ndeyu chart réew mi moo jox injonction au premier ministre ne ko dafa war a dem assemblée te tënku ko donc le premier ministre sait que pertinemment que dafa war a dem assemblée nationale maintenant ñuy demee assemblée nationale c'est au député de l'organiser ça devait être aux députés de l'organiser ñoom seen biir en parce que dafa am ñetti groupe parlementaire ak 18 députés non alignés ñooñu ñoo waroon organiser la venue du premier ministre parce que kenn ci ñoom warul digal la premier ministre ne ko bul ñëw ñoom ñoo ko waroon organiser seen biir waxtaane ko ba d'accord naka lañ koy defee su les temps d'antenne sur les temps de parole sur toutes les situations questions yoo xamante ne la ñu waroon soulever parce que sénégalais dafa soxla Sénégal dafa soxla stabilité présentement mais malheureusement li ñu seetlu mooy politique bi moo ci ëpp doole fuuf on n'est pas ale pour régler un problème on est allé pour poser des actions politiques man nag may am may may may acteur dama naan est-ce que amul lu ñuy nëbb parce que d'habitude les acteurs politiques suñ soulever yenn questions yi. am na lu ñuy bañ am ñuy nit ñi wax ko. d'accord am na lu ñuy soulever donc. Mm cette question là ne devait pas avoir lieu.